na ko section yëpp di commencé ci yow ma ansora su ko defee di ko def ci seen i dëkk njaareem nag kenn ku nekk xam nañ la xam na ni dëkk la boo xam ni bu am solo ci confédération bi dëkk la boo xam ne bu ñuy bàyyi xel la waaye nag euh, tey ñu nekk fii ci ñi nga xam ne ñooy waa développement bokk ci li nga xam ne ñooy don de sang bi nga xam ne dañ koy organiser ci at mu tey na di quatrième édition bi ñu taxaw ak sëñ Ibou Sankara mi nga xam ne moo nekk ci hôpital Luké bi ci district boobu di ànd ak ñun liggéey bi chaque année liggéey bu am solo xam naa dañ koy bàyyee kàddu gi rek su ko defee mu expliquer ñu édition bi édition bi nga xam ne mooy édition ren bi tolluwaay bi fi ñu ci fi ñu ci toll ak maye deret bi wan wàll wan am solo nga xam ne moom la am solo ci askan wi ak li tax ñu koy def ànd ko waa daayira bi nga xam ne mooy daayira Ahibahil Khadim kon sëñ Ibou Sankharé dañ lay bàyyee kàddu gi rek su ko defee nga mën ñoo leeral lool bisimilah. man la Euh, comme ni ko sama sa kër bu waxee maanaam at bu jot ci journée Ashura bi euh, dañuy organiser don de sang fii Kër gu mag daanaka mën nan na bi mooy quatrième édition te édition bu ñëw dafay ëpp euh, dayoo ñoom toujours chaque édition ñoom da naan naan sang yi moom du wàññeeku moom day yokk rek waaw moo tax moom chaque année moom dañ fiy ñëw fii organiser bàyyi lépp lu nga xam ne moom la def euh, ñëw ci seen penc mi euh, organiser fi don de sang bu nga xam ne ñëpp xam nañ ne hôpital bu Diourbel ban sànq ban sànq sang dafa manqué foofu rawatina jamono yi ñu nekk nii nga xam ne période euh, ju août ak septembre daanaka maternité bi ay jafe-jafe kese la ñuy am ndax jamono ji ci la jigéen ñi di am problème avortement yi ci la jigéen ñi di xëpp deret ak ci jigéen ñi di di manqué deret bon ñoom nag bu ñu jëlee bés bii def ko daanaka hôpital lañ ko defal ndaxte ñëpp xam na ne donner du sang c'est sauver des vies képp nga xam ne jël nga sa deret maye ko te euh, hôpital ba nga sauver doomu aadama yoo xam ñoo tëdd foofu moom dayoo bi mu am nag maanaam suñu borom rek moo leen mën a fay li may wax moo di au nom du directeur ñu ngi leen sant dina gërëm at bu jot nag moom dafay gën a ëpp dayoo ndax chaque année ñu ne san poche moom dañ ko am waaye daal nay ëpp toujours te at bu jot day ëpp sans poche actuellement on est à 90 poches donc te demaguñ fenn bu neex yàlla yaakaar naa ni ñu ko bëggee da koy ame bu neex yàlla. jërëjëf sëñ Ibou euh, kàddu yi am na solo lool comme noonu nga ko waxee rek kon buñ mënoon a sàkku ci kàddu yi rek maanaam njariñ gi nga xam ni am na ko am na loo ci wax sax waaye ñi nga xam ne ñoo koy mayet lan la leen mën a apporter ëllëg ndax saa su nekk dañuy jëflante ni yéen ci wàllu woowu ndax yenn saa yi ñu am suñ membre boo xam ne wala nit koo xam ne sax hors membre la bu nekk ci daayira bi day am jafe-jafe yooyu su ko defee dañuy xool ñi nga xam ni mooy euh, groupe yi ñu bokk ndax loolu boo ñu ci mënoo leeral day am solo lool ndax am na ci groupe boo xam ne su ma juumul day mën a may ñëpp loolu yenn saa yi am jafe-jafe boobu dañuy mujj mujj woowaat membre yi ñëw di may ñooñ loolu bu wàllu woo boo ñu ci mënoon a am loo ñu ci leeral aussi gën cee ubbi um, xelu nit ñi dina baax lool waa comme ni ñu koy waxee xam nga don de sang dafa nekk lu nga xam ne maanaam euh, sauver ay doomu aadama la rawatina yenn groupe sànga yu mel ni O positif wala O rawatina sax O te ñoom seen membre dañoo nekk ay membre fidèle te ñun liñ gën a sàkku ci donneur de sang mooy un donneur fidèle donneur mooy ku nga xam ne maanaam moom régulièrement da nga ñëw ci banque de sang bi di ko maye ba tax na léeg-léeg bu ñu amee jafe-jafe yenn groupe sanguin yi dana jël ci membre yi woo leen ñu ñëw ci hôpital ba sauver doomu aadama boobu nga xam ne moom moo ko soxla euh, maanaam léeg-léeg sax ñu ne euh, euh, maanaam sauver bi da nga koy ñu ñoo ko dal ñoo ko sàkk waaye ndimbal nga ci suñu borom moo mën a fay loolu ndax sauver doomu aadama moom suñu borom rek moom mu am pay ga beneen bi moom mooy groupe sanguin yi des fois nit ñi xaw a négliger mais képp ki nga ne mooy doomu aadama war na man a manee deret ba xam sa groupe sanguin bu ëllëgee même buru sa mbokk sax boo déggee ne hôpital ba kat bii groupe sanguin manqué na fa nga war a mën a dem volonté wu dem mayee ko mais nag ñoom ñii euh, chaque année bu ñu mayee pare daanaka liste man du ma ko sànni dama koy téye ak numéro téléphone yëpp comme ni mu ko waxee saa yoo amee benn dund bi nga xam ne saa malade boo xam ne am na soxla bu urgent damay jël tàppe ci kooku mu ñëw wax dëgg yàlla sauver euh, doomu aadama boobu loolu nag ñu leen ci sant di ci gërëm di xam ne donner du sang c'est sauver des vies. jërëjëf sëñ Ibou kon ñu ngi am kontaan bu baax baax ci li nga xam ne moom nga leeral askan wi. kon yàlla nañ ko yàgg di ànd di ko yàgg di def ñu ngi lay sant baax di la jaajëfal jërëjëf baax na ko jërë ngeen jëf yéen tamit suñu borom gën leen a kàttanal ba lépp lu ngeen mébét ci seen bés bi suñu borom àgg na ko ci barke suñu Fallou Mbacke jërëjëf jërëjëf doxal na fii ñu koy defee muy barab boo xam ne moo doon kër Cheikh Mouhamadou Moustapha ibnu Khadimu Rasoul te it suñ borom dogal na bis bi nga xam ne Serigne Touba Khadimu Rasoul dellu na ci ngërëmul boromam waaye ñun ñëpp jàng nañ mbindam yu mujj ya te mu tënge ko waxallamaka maalum takkun taxalam ba ca maha xat naha nufoosa wala si waaye saaxaxoo tan fii ak bayit ya ca topp yépp waaye bi ñu ko noppee gis ci kaw jamono Cheikh Mouhamadou Moustapha def tukkeem boobu ci kër gi la wàcc ba ba ñu àgg ci waxtu guddi mu ànd ak sëriñ Mouhamadou Lamine jóob Dagana dugg ci biir këram gu tedd gii di albuqaatul mubaaraka fekk jëmmam ju sell ja dellu ci ngërëmal boroomam mu def la ca war lépp ba yóbbu ko ci guddi googu Touba ni mu ko bëgge woon moom Seex Seexul Xaddiim dëkkaale ja ak boroomam dellu ca dëkkam bu sell ba nga xam ne moom rek la bëggoon te it sunu boroom xañ ko ko ab diir bu yàgg a yàgg fii la Seex Mouhamadou Moustapha wàccoon mu nekkoon këram lu jiitu loolu ba bis boobu dañu di doon moomeeluk Cheikh Mouhamadou Moustapha jaar ci sëriñ Cheikh amadu Mbacke Gaynde Fatma ba ca taawam bu sell ba sëriñ Mbacke Soxna Lo ba ci seen sët bu sell bii Cheikh Mouhamadou Moustapha Mouhamed ñu doon nu kër gi di ko dundal kon biñ dajee ak tawféexi sunu borom dikk fii di fi dundale li nga xam ne moo jëm ci xisrinal muharam loolu tawféex ju rëy rëy la te lépp loo xam ne mooy làmb bis bi rek wala loo xam ne sunu yitt la te mooy sunu aajo ak lu mu mën a doon bis bii attan na ko barab bu tedd bii attan na ko ndax kenn ku ne dana la wir ne boo tegee sa tànk fii ba ci diggante bii albuqaatu mubaaraka bi foo ko teg rek Cheikh Mouhamadou Moustapha jaar na fi Sayxul Xadim jaar na fi kon bérébub fajukaayu aajo la kon na ci ñëpp ñaanal Serigne Moustapha Mouhamed sunu boroom yàggal ko fi lool te wéral ko ba lépp loo xam ne yéenam la ci lislaam rawatina toolub maamum sayxul xaddim bi mu jëf ko ba mu mat sëkk ba faw xa njort na ko ñépp ñaan ci pàkk bu tedd bii bu rombee loolu nag nañu xam ne waajtaay wi moom day mel ni dañuy doo ko commencé yow mu xaasooraa ji mat na tey jii waaye des na li ci sunu kanam te mu gën a am solo lool bokk na ci yooyu suba rek dinañ am tuur te tuur yooyu jubluwuñ ci lenn lu dul dajale liggéey bi nga xam ne moom la section bi gàlloo te la ci jiitu mooy addiyee ji ñu yot sëriñ bi addiyee jooju nga xam ne moom la ñuy yot sëriñ bi te at mu ne day yokk at mii dañoo fasaad yéene mu yokk na mu daan yokkoo te kenn ku ne xam na ne at mii kat am nañ fi ay liggéey yoo xam ne yóbbu na cim koom lu baree bari ndax sasoon nañu ak kër muy soxna maam xarit moom sëriñ Mourtala ñu yeesal këram ca Touba. def ca lu mat fukki million ak juróom-ñaar wala juróom-benn yu teg sasoon nañ ñu fii ci njaareem bunt yii ñu waroon koo yeesal def ca ñaari million yu manqué tuuti loolee lépp ci biir at mii lañ ko def wala ñu tàmbale ko ca at mee la ci ëpp ñu def ko ci biir at mii ba matal nañ yooyee yëpp wala loolu lépp nag terewut la ñu daan def ci màggal gi dañ ko fas yéene jëfaat ba romb ko tàmbalee ko ci addiye yi kon addiye ji ab soññee la boo xam ne bàyyiwut kenn bàyyiwut fenn képp koo xam ne da ngaa jëf ba matal te jëfal sa njaboot képp koo xam ne mën nga koo soññi na nga ko soññi képp koo xam ne it mën nga koo gis wala nga mën koo jot téléphone ba loxoom dugg ci àddiyee joojee na nga ko def bu rombee loolu it la ca topp te mooy lay dundal màggal gi buñ te demee Touba gis nañ tànt ba ak la koy dundal lépp loole cim koomum sas wiñ ñu sas la te njaareem am ca ñaari million am na lu ñu ca tàmbali am na lu ca des lu baree baree bare kon kenn ku ne bunt ba nga war a jaare ba joxe saw sas ci loola ñu ngi koy fàttaliwaat te di ko soññewaat bu baax a baax te àgg nañ ci cat li te bëgg nañ loolee mat ci diir bu gaaw la ca des nag muy jëfi coobare yoo xam ne ñoo ko gàlloo di ko def di ko defal suñuy mbokki taalibe te lenn la mooy commission yi sax moo ci jiitu commission organisation ak sociale ñoom it ñu am sasu rëy ndax dépense yi ñu leen di jox dañ koo war a yokk ba mu gën a taaru gën a meggoog jamono gën a murite bernde yi gën a bari kon nag loola lañ ca gàlloo ñoom ñi ngi koy jëf alhamdulilahi rabbil alamin waaye jëwriñ yi ñi ngi leen ciy encouragé tey wax ne nañ ko def ba mu gën a muccee ayib na mu na mu daan gën a muccee ayib ci at yi jàll la ca toppit te kenn ku ne xam na ne section ndakaaru ànd ak section Thiès section Kaolack ànd ak section gi Guinguinéo section Mbour it ànd ak section Fatick muy juróom benn section yoo xam ne dinañu wàcc si fii buñ nee suba la màggal ñëw fii yendu fi añe fi dallu fi ab diir ànd ak Cheikh Mouhamadou Lamine Bara mi jiite regroupement de section yi ànd fii gont wuy gont wu ak si Touba loolee nag teraanga ja ca war jëpp ñun ñii ñoo ko gàlloo waa njaareem di leen ko defal te mooy ab añ mooy ndox mu sedd mooy boisson liggéey booba nag ba Bassirou jong la ko section bi dénk mu jaare ci commission sociale ak ñamu àndal ñëpp liggéey boobu kon koo xam ne tàbbal nga ca saw ñax alhamdulilah ku ko ca jëfagutit lépp loo mën nanga ko ca def bu kenn xeeb dara bu kenn yéem dara ab añ lay doon ak boisson ak ndox mu sedd kon ku mën saako ceeb wala birogum diwlin wala saako soble wala boison wala ndox wala lépp loo xam ne mën nga ko rek na nga ko def jox ko sëriñ Basiiru Jong wala ñam àndal liggéey booba bu ñu àggee ca bis booba sunu gan ñooña buñ fi agsee xam ne teraanga ji kat niñ ko daan defee defaat nañ ko ba mu mat sëg te kenn ku na xam na ne fat gis na ci ci vidéo yi ak yi sëriñ Cheikh jenn mi jiite section Ndakaaru daaw xolam dafa sedd ba yéeme ba denn sëriñ bi biñ jaaree njaareem biñ jaaree njaareem la jot a wax xolam sedd mu daanu foofee la yemale wax ja kon nag na mu daan amee na gën a mucc ayib ñu ngi cay soññi suñ bopp da ca soññi ñëpp lii daal mooy yi nga xam ne moo nekk ci sunu kanam te mooy màggal gi ak la ca aju lépp tañ war koo jëf kon kenn ku ne noo ca jëfee rek na nga romb noona loo xam ne yéene nga ko mbooloo mi rek ak lu mu mën a doon rek loolee na ko indi ndax biir liggéey ba attan na ko tey soxla na ko muy jumtukaay muy lu mën a doon lu ñuy jëfandikoo ak lu mu mën a doon ñi ngi lay ñaan wala sab xarit boo xam ne sax am nay jumtukaay wala mu amum koom moo xam ne boo sàkkoo ci moom dana dugal alalam ci liggéeyub Serigne Touba bi ñu ngi sàkku ci yow loolu la ca des nag mooy kilifa yi danañ ko wax bu ñu àggee ca liggéey ba te danañ ko soññewaat bu baax a baax ci jataay yi des te mooy yar ak ci teggin bi ñu xamee njaareem nañ ko dàbbaliwaat nañu ko yàgg a defee te mooy jëfe ko màggal gi ba ànd Touba àgg tuubaa ci kanam sëriñ bi bu fa jógee àgg ca dal ba buñ xewloo ñëw ca baas ba fanaan fa ba asamaan set ndax nañ xam ne bis bii mooy bis bi gënal sëriñ Touba ci ay bisam ni mu ko ñaane bind ko wax ko lu baree baree bare waaye mooy bis bi nga xam ne dafa dellu ci ngërëmul boroomam ñu jële jëmmam ju sell ja ci barab bu tedd bi albuqatul mubaaraka ci ndigalu Cheikh Mouhamadou Moustapha mu jiital sëriñ Basiiru Mbàkke ca yoon wa mu dem ak ña ko war a fekke ñëpp ñoom ñu dem fekke loola ba def jëmmam ju salli jo joojee ca barab bu tedd boobee kon nañ xam ne loolu la ñuy dundali loolu la ñuy màggali kon nag loola moom yar yaraki teggin la war a àndal li ci jëwriñ yi soññee woon rawatina ñun ndaw ñi te mooy moto yi ak la ca aju lépp nañ ko bàyyi xel buñ ca àggee xam ne loolu mooy sababu màggal gi loolu mooy la ci aju kon teg ko ci yar ak ci teggin mooy mooy mooy mooy mooy mooy warteefu ma daa leeneel nag loo xam ne sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma moo ko waxoon sëriñ moor jàndam ndax dafa am at moo xam ni sëñ moor Njàndam dafa sanc ab dëkk sanc ba tax mu xaw a naqari ba tax at mooma màggal siwul ba màggal ga jàllee mu mu ñëw siyaar si sëriñ bi mu laaj ko lu tax màggal si woo mu xam xamal ko sanc bu naqari ak jur gaag gone rek mu xamal ko ne ko bis bii kat soxla sun boroom defut seen soxla su jar kenn genn ruu fanaan fenn fudul tuubaa te it ci bokk na ci discours yi Serigne Cheikh mu waxoon ne kat ku am ñaari mbubb na nga ko jaay paase menn ma te ñëw ku am menn sax jar na nga jaay ko paase ko te ñëw te it ruu yi la sox la Cheikh Moustapha soxla ci bis boobu ci guddi gi Touba kon képp koo xam ne boo jëfee jëf yi ba matal am na loo mën a jëfal sa mbokki taalibe tamoo yi nga dimbali leen ci ay tëni wala ci ay paas loolee bokk na ci yoolu màggal gi kon na ko ñëpp bàyyi xel wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mu ñu gën ko fonk muy nekk suñ kanam di bisub waa ndakaaru boobu nga xam ne ñoo fi war a ñëw ak it wàccaay yi nga xam ne moom la ñu war a wàcc màggal gi ci dem yi ak nañ koy tënkee loolu ñu ngi ciy tënk li ci jëwri ni jublu rek mooy buñ ci àggee lépp loo xam ne tënk nañ ko fa rek buñ ci jógee nañ ko war a jëfe ñun ñëpp ñu maase jëfe ko noonu kon loolu rek mooy doonoon lañu ci doon dolli leneen li ci des li nga xam ne bokk na ci li ñu fi tax a yendu dañ ko doon fàttali waa social di ci def lu am solo muy doona sang bi nga xam ne mooy mayam deret mi at mu jot ñu di ko def yàlla dogal na tey jii defe nañ ko nañ ko daan defee tey jii may nañ ci 80 ponches muy juróom-ñett fukk li waral mu mat loolu yi ni ko jëriñ ji leere la léegi jamono ji moo tàng ak naaju tàng bi moo tax ñu tënk ko foofu kon li ñu doon sàkku rek muy ngërëmal suñu borom yàlla na ko suñu borom jotale képp koo xam ne defoon nga rek wala nga def kon li ci des gi nga xam ni